Avec Khalifa Sall, ils ont montré les preuves. De quoi ont-ils peur De quoi le gouvernement a-t-il peur Macky n'a qu'à faire attention. Ah Makissal est en train de faire des, erreurs monumentales dans sa vie. Ah Il n'a pas de bons conseils. Ah les renseignements généraux lui ont fourni de fausses informations. Imam Ali Madrandou est un VIP. Est un VIP. On n'a pas de tourisme au Sénégal. On n'a pas de tourisme au Sénégal. De nos Russes. De nos Russes. De nos De nos danoo rus nekk sénégalais parce que lii kenn mënu ko gis ñaari at ak lu mat ñeenti weer ñu tëj ay nit mënuñu génne benn preuve lan la ñuy ragal lan la ñuy ragal te imam Alioune Badara Ndao bu tuddoon imam Alioune Badara Mbacké imam Alioune Badara Sy imam Alioune Badara Niass imam Alioune Badara Laye du nekk si kaso bi deux poids deux mesures bi ñuy def naan imam Alioune Badara Ndao dafa bëgg indi beneen Les gens, waxuñu dëgg waxuñu dëgg nous serons derrière lui bu ne imam Ali Mbar Ndaw terroriste la ba ñun ñëpp ay terroriste la bu ñu nee suñu pays bii quatre musulmans lañ de quoi on est peur ay doomu jullit lañu ñun dañuy wane suñu taxawaay ñu ngi ñëw ci tribunal bi un tiers bi dugg ñu ñëpp ñu ngi ci biti amuñu fu ñu toog naaj bu tàng te pourtant procès de am dañuy bàyyi nit ñi toog ci couloir bi def lu nekk loolu amul. beneen bi mooy li ma gën a metti ay kilifa ay mu mukallaf ñu similoo leen seen i mbaxana seeni kaala lan lañu waroon a tere ay jigéen ñi nga xam ne dañoo sol tubay sol bëdi loolu lañ waroon a tere pour mu dugg ci saal bi mais pa ay kilifa yu bejjaaw ba weex ñu ni leen dindi leen seen mbaxana ak seeni i kaala dans quel monde nous vivons ban dëkk la ñu nekk ban dund la ñuy dund waaye yan saa salaam waxoon na ko mujjub jamono képp ku téye sama sunna bi dina mel ni ku këf ku xalu safara si loxoom. dana ñu jaaxal lool. ndax lu baax lañ ko xamee jàngale xam-xame yërëm nit ñi dimbal nit ñi daan doolem di masta lekk alalu gouvernement mësu koo lekk ba nag buñ toogee ba tey ñu ne terroriste la ñuy jaaxal te gisuñ ci moom benn preuve dañuy ñaan ñu génne ko lillaay wala sóora gisaluñ ko benn preuve léegi ñun paas yi ñuy paas ci yàlla la jógee di ci ñun yàlla da koy yombal rek bu fekkee paas yi lañ yaakaar ne dañuy yàq ba dañuy yàqule mbaa leneen du ma sa yàqu ca kaw ca kanam rek day gudd yomb heure bu ñëwee day gën a yomb bon nag li laay wala soli nañ génne Oustaz Alioune Badara Ndao def waxu